asalaamaaleykum man la Lamine Mboup man may dugal vocal bi di ko xamal képp kuy sama mbokk sama doom sama xarit sama mbokk jabar waa eaux et forêts ma doon liggéeyal ak ñëpp ñi ma xam dama xëytu say suba teel ndaw si envoyé ma message ne ma bonjour ma xool xool xaw ma kan la ma enfa tontu ko nekk yow la kan tu es qui mu répondre ma ma je suis je suis d'origine française mais je travaille au Canada mais actuellement je suis en vacances au Bénin c'est toi qui m'avais donné ton numéro sur Facebook ma répondre ma ko tu as dû faire erreur man de Facebook du ma koy fréquenter sax ba ñàkk même mes enfants bu ñu jéem a bu ñu jëlee portable def ci application Facebook dama koy dindiwaat man Facebook xaw ma ci dara man WhatsApp Telegram lay dugg ak YouTube après mu jékki-jékki daf ma appel vidéo ma wuyu ko. daf ma appel vidéo ma ko mu ne ma yow foo nekk ma ne ko man Sénégal laa mu ne pourtant yow da ngaa juum mais yaa ma joxoon sa numéro ci Facebook man ne ko man du ma dugg Facebook kon da ngaa juum. mu ne nest yow la Lamine Mboup ma ne ko waaw parce que Facebook xam ne peut-être bu duggee gis sama tur wala nangam ok après ñu waxtaan mu ne ma noo man vraiment euh, dama la xool bëgg la ma ne ko man dem mag laa am naa soixante na man mag laa fi weesu naa yooyu lépp ci appel vidéo bi de ma pare toog ma même pas dix minutes mu envoyé ma ay vidéo yoo xam ni man mii la wane man mii la ñu wane. ma def taatu neen génn samay awra téye ko di wone mu gis nga sa vidéo yi mooy wax yónnee léegi woo ma ñu waxtaan ma xool loo may jox sinon dinaa ko dugal Facebook am naa sa liste contact euh, yépp naa leen ko yónnee bi ma waxee loolu ma ne ko merde dafa lu la neex man màggat ko am juróom benn fukki at ak nangam mën naa ma koy tal naa yendu yóolu su fekkee ne xaalis yi wut aw ma lu parce que man léegi bu ba retraité te xalaatuma la ko jox sax su ma ko amoon sax ma la dafa yomb trop ci nit ko fum la neex mu envoyer message écrit nema ma djé ngaa sino je vais détruire je vais te ruiner je vais détruire ta vie ma tontuwaat ak doko faalewu la dafa lula neex lolou taxoon man ne nak nag képp koy sama nit na la yónnee li ba bu ëllëgé so gëssé ci Facebook wala site internet yi lenn lu ñu rek li nga xamné ay fenn la. te xam ne ay fan la ay tapale ay manigance la ay tricage la loolu taxaw ma dinaa ko wax képp ku ma xam incha allah aussi képp ku ma mën jàppale si kooku woon na yónnee keneen aussi nga yónnee ko ko jërëjëf.